lettre bu mu bindoon Serigne Saliou mu jël ma loola a Mbacke la dana ko saral sëñ Abdoulaye Mbacke la ñu bëgg a jàng ba am diplôme gën a mag ci itam ci wàllu ndox ba pare a la Serigne Saliou Serigne Saliou yëkkati maa war a délégation Walfadjri nañu ci yéen si seen góor seen xarit sa jigéen di sa lépp boobu maa ngi doon léegi itam ñu wax ci turu Walfadjri moom it maa ngi waaye bugaan sarax sa jigéen bugaan délégation waa Walfadjri yëpp bugaan ñëw nañu sarax sa jigéen sa xarit madame Thiam moom itam nekk kenn ci moom di magam di góoram di conseil di féeteem nekk sa lépp waaye moom itamit nekkoon kenn ci moom nekkoon jigéenam tabaarakallaahu moom yegsi na ak délégation bi man dem yëpp sëriñ bi yëpp bàyyi ma koy tam sëriñ baa ngi nii ñu ngi koy mu daan bismillah oustaz toogal toogal bu baax sa jigéen itam yaa awa Thank délégation Walfadjri kontaan nañu ci yéen. moom it maa ngi ñëw ah yéen bëgg maa ngi bëgg si ba xaw xew doon na ak xolam sëñ bi. jërëjëf Cheikh ñu ñu bàyyi ñu gunge sëriñ bi rek ndax délégation Walfadjri ñëw na waaye bugaan sarak sa jigéen. ab leetar bu mu bindoon sëriñ Saliou mu jël ko jox ma loola sëñ Mbacke dina ko sara sëñ Abdoulaye mel nañu bëgg a jàng ba am diplôme di gën a mag ci ci wàllu ba pare joxe la Serigne Saliou Serigne Saliou yëkkati maa war a amatu. di seen yëpp yàlla si seen góor seen sa rak sa jigéen sa xarit madame Thiam moom itam bugaan ñëw na nga nekk kenn ci moom di magam di góoram di conseil di féeteem nekk sa lépp waaye moom itamit nekkoon kenn ci moom nekkoon jigéenam tabaarakallaahu moom yegg na ak délégation bi man yëpp sëriñ bi waaye maa koy tam sëriñ nii ñu ngi koy kontaan baax bugaan bismillah oustaz toogal toogal bugaan sa délégation Walfadjri kontaan nañu

ñuy ñaan rek ku jaale rek man ngaa jugal ku taxaw rek boo bëggee def discours rek après yoon bi day yeex ñuy ñaan ku jaale rek mën nga mën nga jugal. may ñaan rek ku jaale rek ndeysaan bu mënee gaaw lool Oumy Oumy gis naa ko Oumy xam ngeen ko bu baax a baax tabaarakallaahu mook soxna Rijal njabootu aboo Rijal gi yëpp ñëw nañu sëriñ Sidi Mbacke yi nii moom sëriñ Makhtar Mbacke moom sëriñ Cheikh Awa Balla mu maam Thierno Birahim teew na ngi nii di yëg di jàllante ak mbokkam mi bugaan délégation yi ñu ngi nii di ñëw waaye ñuy bàyyi xel ñi nga xam ne itam tabaarakallaahu ñu ngi ci alxuraan ndax yombul de juróom ñaari kaamil ci waxtu wi néew ci njaboot boo xam ni ñi koy def ñi ci tolloogu nu fu leen yàlla di bindalee bàkkaar yàlla na yàlla nangu ci barke Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa